xamuñu mag nit kii bi degré erreur bi xamuñu ko fi mu nekk mën nañu spéculer lu ne lu ne mën nañu ko spéculer ba mu des lenn lenn rek la ñu mën a spéculer mooy ne dafa yor ay pistolet dafa yor ay pistolet wax xale bi dama lay rey am na fu ma liire tamit ñu ne dafa xoj xale bi daf ko xoj mais loolu même bu dee xoj dafa am gars yi affaire dafa grave vous xoj bi hein? mais si ne ñu la piéger bu la pièges piéger tu ci viol man la piéger ci viol piégé, gars wax bu ñi piéger Sonko xam vous lan lañ koy wax piégé, bëgg nga Sonko dañu bëgg maniw Sonko éjaculer mais éjaculation bi rek du doy parce que le mënañ wax ne consentement dafa am manam yow yaa nopp Sonko gel Sonko loolu mënuñu si mënuñu si tëj Sonko mais dañoo bëgg nga fexe ba ba ñu ne Sonko da laa violé léegi lan ngay lan ngay def danga naan Sonko man de dama am benn parce que xam nga si tubaab yi daf ciy am Ibra mën naa monsieur Cheikh nag des fois il faut may neexal tuuti tubaab yi tubaab yi jigéen yi daf ci am tubaab yoo xam ne dañoo bandi dañ naan la bu ñuy def amour dama bëgg nga may mbéj mbéj ma wala xoj ma ma yuuxu mbéj ma xoj ma. amna mais imaginez tay vous formé won xalé bi ne ko defal lolu da ngay wax bu mu xoj la mu euh, met la xam nga wax ko wa wax wax mais motax mané gaay gaay yu doon piéger amateur lañu bu vrai vrai vrai sadique lañu bu doon vrai sadique lañu jël temps dañuy jël sen temps former xale bi coach xale bi américain non lañuy def israélien non lañuy def euh russe non lañuy def chinois non lañuy def mais ñii li tax mané duñu du Macky Sall li tax mané duñu du ñoom Macky Sall xii kii xëy na sympathisant Macky Sall wala wenn wa APR bu bëgg bu gis li rek daal ci profité def li muy def mais mais normalement mais normalement buñu ñu bëggoon wane ne viol viol viol dafa am non lañ koy defee mais gëm na né loolu yëpp amul man gëm naa ne loolu yëpp amul ndax viol kenn du ko filmer d'abord viol kenn du ko filmer yow doo jël sa téléphone portable xale bi ami ami nu mu tudd xale bi Adja doo jël sa téléphone di filmer fu ñu lay violé loolu amul sens bu doon nag caméra salon bi bu dee salon bi dafa ah, ah, mais bu ñu muusoon Ibra Seck gars yi bu ñu muusoon dañuy fay ndaw si man ndaw si pour man dañ ko fay de pour man Khady Ndiaye bii di wax naan ay lii lii lii lii pour man Khady Ndiaye patron bi gars yi dañ ko fay pour man ajaa Sarr gars yi dañ ko fay bu fekkee ne gars yi fayuñu Khady Ndiaye gars yi fayuñu Adja Sarr loolay wan ne gars yi ay cuune lañu ay vrai cuune ndax yow bu fekkee ne da ngaa bëgg daaneel Sonko nga am nga am une occasion inespérée gars li Matar wax Sonko prêté le flanc manam Sonko Momo, def erreur monumentale Ils xamné ne nek amna ay patrouille Sonko def na <coughs> ne Sonko mo def li erreur bu melni bu amé ci bi les gars ils ont été ils ont été très très intelligents parce que xalé moom moo wax maa ak moom mooy wër Adja Sarr Adja Sarr moo doon wër di wax ne maa ak Sonko maa ak Sonko maay maase Sonko maay maase Sonko loolu affaire bi foofu la commencé Adja Sarr bu wax maay maase Sonko wax ko xaritam xaritam da wax ko beneen xaritam wax ko yaayam noonu lay dem nag ba benn ku bañ Sonko du question ne APR nga bokk de mën nga sax nekk ci opposition bi nga bañ Sonko walla nga bokk APR bañ sonkoo surtout nag gouvernement bi la njëkk xalaat nga bañ Sonko parce que Sonko moo lakkal kii bu bu yëgee loolu nag dañuy jaar ci xale bi ndànk génération TikTok yi nga xam ne gëmuñu dara masseuse yi nga xam ne déjà kan mooy am doom di ko bàyyi muy liggéey salon de massage man Sénégal déjà pour ma am doom bu jigéen sax di ko bàyyi muy liggéey ci restaurant sax wóorul ndax Sénégal. promotion canapé moo fa am Sénégal amul liggéey lu tax man ma bàyyi Macky Sall li tax ma bàyyi Macky Sall mooy Sénégal amul liggéey Macky Sall amul yërmande ci xale yi moo tax xale yu jigéen yi seen yaay yi di bàyyi ñuy dem di liggéey mais normalement amul benn xale bu jigéen bu yaayam di bàyyi sax muy dem di nekk serveuse biros dooyee sax wóoratul ndax gars yi dañ lay doxaan foofu wala serveuse dañ lay doxaan par force dañ lay doxaan ba yàqal la sa doom waxatuma ak salon de képp ku am doom jigéen dix-huit ans dix-neuf ans nga koy bàyyi muy liggéeyi wala nga am jabar nekk fii ñàkk fayda moodu moodu yi ñàkk fayda am seen jabar ñu naan la dañuy dem liggéey ku fi am man sama jabar bu wax waxu liggéey dama naan ko bu ma fontoo liggéey Sénégal liggéey Sénégal bul ma fontoo laa koy wax gars yi ay doomeeraam lañu gars yi ngeen baal te Sénégal xam lu tax mu bon amul loi contre harassement sexuel harcèlement sexuel amul loi bu doon fii garaawul ndax fii dañu protéger jigéen yi jigéen buy liggéey nga koy doxaat dalay yóbbu léegi porter la ñu jàpp la wala ñu tëj la mais Sénégal amu fa Sénégal jigéen bu ñu gis muy liggéey ci restaurant gars yi dañ lay doxaan Sénégal ci boppam du ko Sénégalais mais Sénégal dañoo bëgg jigéen mais li tax Sénégalais seen bëgg jigéen doy waar mooy bu ñu laalee sa taat wala ñu ñu ne la dama laa nopp wala ñu lay wax waxu cega dara du leen ci fekk parce que amul benn loi kon ku ci am doom wala am jabar diko bay muy dem di liggey ci ay restaurant wala ci ay salon de massage yaa ngi ne ko demal ciagatu ji nga koy wax ciagatu bi du ñew rek am ndank ndank lay amé xalé bi day ñew di la maase nga ne ko way mais sama rag yow da nga nice yow sama rag yow da nga ay ci sama rag yow ni ngay maase sa loxey sedd sa loxey nice na wa nu mu démé fo dekk non lañu commencé nga paré ci massage bi ñu yëkkati ben 2000 francs may la xam nga non lañu commencé di la may 2000 di la may 5 des fois nak à nak la prochaine fois di lamb say xam nga nan la non ci ci souf wala defal li defal la nonu ngay def ba comme surtout nak bu da nga am patron bu wala patron bu bëgg xaaliss ñu profito ci def loolu afru ciaga ne la eh client ay de bu ñu nga mais rek l'essentiel yow bu bu ko xam lan lay wax l'essentiel bu ko bu ko raay bu ko bu bu ak bu mu ak yow. mais bu dee dafa bëgg nga jàppal nga affaire bi ah ak sa huile huile de massage am bu dee dafa dafa bëgg nga jël huile de massage bi di ko kii ba mu daanu mais loolu garaawul loolu de mën nga ko ko defal mais nag da nga naan ko il faut nga fay ma il faut loolu pour mu am da ngay joxe 10000 il faut nga yokk 10000 mille noonu la ñuy def ba yàq xale yi noonu la ñuy def ba yàq xale yi moo tax xale yi tamit dañuy dem ba après dañuy wow bët léegi nag xale boobu ba mu commencé di wax man maa ak Ousmane ko man déglu naa ojo bi ojo bi déglu naa ko mais audio boobu nan la def ba génn est-ce que ñoom DJ Boubs ñoo ko génne parce que ñoom DJ Boubs si interview bi xale bi daf leen wax Khady Ndiaye daf leen la ne bu leen ma enregistré bu leen ma filmer bu leen ma enregistré bu leen ma filmer kon ojo boobu nu mu def ba am kan moo ko def Khady Ndiaye moo moo moo doon filmer ci suuf bu dee loolu am na de kon Khady Ndiaye mi yow yaa ngi ne gars yi bu leen ma audio bu leen ma vidéo bu leen ma audio bu leen ma vidéo mais ñu jékki-jékki man de mbër gi de ma gis audio bi ci internet bi mu naan leen effectivement xale bi dafa ne ne ma aak Adja ma maa aak Sonko mais effectivement maa si Sonko mais sa maa si Sonko mais loolu succès la man Adja Sarr condamné woo ko ci côté boobu maa aak Sonko maay maa si Sonko boobu massage rek la seq mais bi ki ñi ko warul dégg ba ñu ko déggee. dañ ne lii c'est c'est extraordinaire Ousmane Sonko guddi di dem ñu koy maase ah déedéet kii dañ koy piéger kii fii rek lañ ko waaw ah, Sonko pare na noonu la ñuy def nag ñu ne xale bi kaay ñu fay la xaalis mun nañ ko jox cent ñu jox cinquante mille wala ñu dik ko ah, ah, nu mu tuddati téléphone iPhone 12 wala ñu dik ko passeport diplomatique lu mu lu mu leen ko jaral parce que dégg ngeen temps yi ñu naan quarante millions quinze millions ak lu ne nga koy dégg. xalé bi nak non lañ koy def mu commencé nak di def ñu ne ko fexal ba nga amul ñu man yu Sonko loolu ki moko wax Xadi Njaay moko wax neena na na am na ku dégg bok ci téléphone bi ñu ne il faut nous trouver le sperme de Ousmane Sonko kon xalé bi duggal nañ ko ci légui ba ñu dugalee xale bi ba xalé bi am loolu ñooñu bu ñu après dañuy fexé nak ci loolu loolu lañuy jël dem def pression ci Xadi Njaay ne ko gis nga gis nga yow da nga ne sa salon li mo fi am bu wa nak police moy ñew police wala ay agent ay agent Macky mën na ñew xokatal Khady ñay da ko gis nga on a des preuves contre roi ndax Adja sar mi yang ngi koy cegatuloo mi ngi ni am nañ ay preuves gis nga limu def ak Ousmane Sonko motax mané ñi ay amateur lañ bu doon CIA wala FBI non lañuy def étape par étape dañuy def étape par étape légui nak ñew ne Khady ñay da ngay coopérer